Cheikh borom produit yu baax yi. Hmm. léegi boo doon ñëwal ci wàllum euh, sarax. dafa bëri ay pàcc. Hmm. am na ñoo xamante ne dañu kale. du kale fekk sarax bu ñu xamoon seen sarax rek. ñu hmm. mën a décanté wu. am na ñoo xamante ne ñi ngi feebar. ñàkk xam seen sarax moo waral loolu. ñi ngi faju fu nekk nag. ñi ngay gis ñi AVC yëpp ñàkk xam seen sarax moo leen waral loolu. yàlla xam na loolu. am na ñoo xamante ne ñi ngi ñi ngi tàggoog seen xel maanaam ñu dof. ñu ñuy woowee dof. Mm. moo xam David Alaba bu ñëwoon wala Cristiano wala Messi mu jox la turam dëggantaan ak santam. Mm. boo waratoon tur da nga xam ne kii lii mooy jafe-jafe wala kii lii moo koy nangam ak nangam mm. ay code la ay message la ñu envoyé ay notification. notification barke Rasul lay. notification naa la wax notification ah. <laughs> bu bees sax bu ma benn sëriñ pirate. dégg am na ñoo xamante ne ñii ku ma jël ay décanteeg yu ma xamul. sama mooy dégg ngeen ko xam nga borom notification yi. dama la uh-huh. karim. wallaahi laazim uh-huh. wallaahi du non man xam mhm. safar bële passé bu daaw. Mhm. mi ngi doon tàkk bu baax a baax. Mhm. safar bii mu nekk ci ak lëndëm ñu. turu turu turu doomu aadama Bamba Dieng Cheikh Konté mi mbir. Euh, en direct ñu xool ba xam Tektal TV. Cheikh Amadou Bamba Dieng Cheikh Amadou Bamba Dieng. moom laa doon xool ah. waaw rab de dina ko gàllankoor benn. waaw ah, ah, te lu mu dugg du ko yeggali. lu mu dugg du ko yeggali comme mën na commencé lii nii. waaw comme que day fubal mën na dugg fii nii ba nga foog ni foofu la. waaw mu génnaat ci dam song feneen. bari Cheikh. Mhm. iñaan nag. Mhm. dañ ciy ñëw ci soxor iñaanu mhm. national iñaanu international. ba ci Mathias Pogba. xam nga buñ la ko traduire boo la neexee nga ñëw mbëkkanteeg man sama yoon nekku ci. mais man mm. dama laa mere baa laa faral léegi seex dafa am mm. loo xam dafa xew ci àddina bi mm-hmm. Pogba ab football kat la boo xam ne que jullit la benn mm-hmm. day dem màkk sax day jaamu yàlla mm-hmm. d'accord na ku gëm boppam la bokkal ndey ak nag dem indil koy problème yu rëy ba perturbé bopp bi joxe na xaalis dem na jël nay nen da koy yàq ku bëgg a mucc ci soxor bi leen ba saf sap lu waaye dóor mu delluwaat ci kawam mbirum baa bi bu ñëwoon ci yow di nga fexe ba maanaam frère am boobu lu mu mëgg ci saay rek baatin du ci mën dara muy Pogba muy Samba Ndiaye ak ku mënti doon gis nga lii ku ko takk wala ku ko am nga takk ko mhm. nga dëkk ak ay noon dañ lay bëgg par force wala ñu génn kër ga abal la kon ndomb gi dañ ko jox tur ndomb ndomb gi wéttal Seydina Mouhamed laa lay gi ñaan kon ndomb gi nañ tudd wéttal eh, sëñ bi yow moom waaw ah, macha allah sa seet bi mhm. sa seet bi garaaw na de laa ilaha illallah cet cet macha allah chiffre yi nii ah. génnul exemple téléphone téléphone numéro Macky Sall boo ko jëloon. Hmm. day am si yii force. day am si yii force day jàpp si numéro Joe Biden day am numéro ki ëpp alal si àdduna bi boo ko jëloon day am ci lii force. pour que liggéeyoon ñu suul hmm. armeel day deñ. waaw liggéey ak lépp lu mu mënti doon day deñ. wallaay lancé tuuti jaaxaan. billaahi. lii xam-xam bii nii ñu ko xam bariwut mm-hmm. donte tableau yi bari naag yooyu maanaam nga a tur doomu adama bi dafa am loo ci yokk pour xam mm-hmm. raw xaan lii la jàpp ak yooyu mm-hmm. comprendre nga loolu nag li ko yàlla may ah gisaguma ko boobu léegi nag li dafa am nga ci wàllum sëy ak jigéen bu bëgg a ci wàllum sëy ak góor boo xam ne dafa xeeb li mu yor bëgg ko yokk am wàllum sëy moo gën a tuuti ci lu ma xam. boo xamante ne dafa am problème mu ngóora. 2013 xaw ma 12 ba ba tey barki Seydina Mohamed. Mm. wallaahi laazim. Ah, bu fekkee ay fen la yàlla bu ma àggale émission bi. man góob may nañ ko jabar jabar ji barki Seydina bañ ko xam maye 2012 xaw ma 13 ba tey musta siqaat moom su demee bay siqaat moom awra bi day wàccaat. Ah, barki Seydina balaa moo dugal affaire mm. mu jaaxle lool. <laughs> da da da da jigéen ci bi yaa ngi yokk seen ansi. jigéen yooyu man ay ma xam ay yokk awra ay kàttan ay bëñ bi metti ay wàllu nguur ak nangam ak nangam moo gën a tuuti ci xam ay garab laa koy liggéey garabu mm. cosaan à base des plantes borom biir bu rëy mën nga fexe mu tuuti borom biir bu rëy muy fay ay millions pour dem dindi ji ay gën naa la fii ah. leelu Sadio Mané mën nga ci dara te man dama ah, koy gis des dama koy suivre nii nii ma ne leel bii dafa ma ko jox ma faj ay jubóole yomb yooyu mhm. passeport la de liiral passeport ban passeport la passeport bi moo woon leen kayit papier moo xam visa moo xam passeport moo xam ay kayit yoo war a lijjanti loolu hmm. doyu moom